والقلم وما يسطرون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 نعمة ربك بمجنون dafa am fan yi mbokk moo xamante ni ci réew mi la nekk ndax dafay liggéey ak réew mi bëgguma tudd waaye bu ma ko waxee ñépp dinañ xam kan la dafa wax fan yi ni alaaji Malik ak xam-xam ba tey ci tey ku nu war a delloo siwaat tegaat yoon bindam ci wax ak waxin wu ñàkkin teggin te loolu ak tooñ la rawatina koo xamante ni dafa nekk ci wetu boroom réew yore làmmiñam fu ko neex mu tàllal ko fa ci ñàkk kersa ak réew ak lu bon te loolu ñu ngi koy bay bayal bërki dem wax na ko ci sa majesté le roi Mohammed VI ba ñu ngi wax sax naan ce ñooñu du ñu def plainte jëmale ko ci moom te loolu fii réew mi toll jarul ubbi de Seydil Hadji Malick dafa waxoon ni bu ñu lakkoon kutubu shariati ma xëy danaa ko taalifaat baaxe ko julliti ndax lépp a ngi ci dënn bi moom yelloo na baat bii علمي معي حيثما يممت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه أو كنت في السوق كان العلم فيه kooku lu mel noonu yelloon na ci moom bu amee koo xamante nag dafa daas làmmiñam te jëmale ko wul lu dul ñu baax ñi ci réew mi warngeen ngeen cee wax ndax borom réew mi fii orma rekk la fi am ndax ñu nangu dogalu yàlla ci moom la waaye njaboot gi ci wetam ñu bàyyi leen ñu daas seeni làmmiñ ku leen neex jëmale ko ci nitu yàlla yi jaaduwul jërëjëf waaye sëñ Moustapha gis nga ñooñu li leen di tontu mooy gàmmu ñëw am ni mu daan amee te mënuñu si dara loolu mooy tontu bi waaw mbax ni yàlla dugale si xolu jullit yi Alaaji Malik di tarbiyu bi mu tarbiyee yàlla liggéeyal yàlla ba yàlla liggéey loolu def ko si xolu xale yi surtout xale yu ndaw yi damay dox si Tiwaawan ay xale lu treize ans ñuy bëgg rey seen bopp si seen xale looloo koy faj leneen nag su fekkee ni c'est un débat d'idée ñu seq ak ñoom wóolu nañu suñu bopp bu baax a baax parce que ci sumu fu mu jaar